genn kilifa saad wax nee na ñun de xamuñu woon ne yàlla mi wax wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina salamu minkum xaasa mu ne dañ ko doon jàng ci alxuraan waaye dañoo toog toog rek mu ne tis ci suñu kaw ñun ñëpp ñu soog xam ne ndeke ba yàlla di wax ñun ñii lay wax kon nag nañ jël loolu yonent bi di wax ci sunna ak ci alxuraan jàpp ne ñun ñii lay wax dëkk bi kat ñu seetaanee mu dem ba àgg fenn foo xam dañ naan na sëñ bi wax dara jëru ko ndax bés bu set mu wax bés bu set mu répété wu kuy topp da nga topp da nga gis ne kilifa yu mag yi fi jiitu woon daanañ def bu fitna amee ñu jóg wax te yàgg na réew mi yàgg naa am loolu kon nag ginnaaw ñun ñooy njaboot yi lan ñu digal mooy jàmm te kat dara ko ci àdduna wut baat baray baat man damay wutut baat ray baat déedéet dara jëru ko ci àdduna te kenn forcé wuñ kenn nag ku ci nekk da ngay dugg ci mbañ gàcce toog sa digganteeg sa borom nga am ñaari responsabilité mooy benn yow sa baat bi nga wax ak ki ngay dimbale yaa koy tànnal sa bopp kon ñoom dafa mel ni ñoom it liñ rëdd leer na nañ kon kenn ku nekk jullit bu ne yaay xool sa diggante ak sa borom wala képp koo xam ne citoyen nga. ñu ne jamono booba dafa am ñaari kuréel mais dafa am kuréel boo xam dañ ñun duñ ci fitna bi ñoom noonu la moo seen gis-gis waaye fuqaha ya ak borom xam ya dañoo dem ba gis ne déedéet ndax yàlla yit waxut noonu rek bàyyi dañuy xool kan moo am àq kan moo ëpp maanaam ku am xaqiya ñu ñu war a jaayantee jaayanteeg wala ñu topp la su boobaa nag ka nga xam ne moo am dëgg kooku la ñuy topp ndax lan ndax dimbale dimbale sunu borom yan tansurullah yansurukum faw nu nit ñu jóg ci ndax yàlla du dikk nañu ee eh, diw demal fee diw demal fee diw am li diw am ne déglul kiy wot baat lam lay wax ak programme ba mu lay indil loolu la leen di jàngal nga xam ne yow ban position ngay def rawatina nag ki nga mos soo amee sa soxna ñetti soxna ci sa kër ñaari at ñetti at xam nga ko neex ceeb xam nga ko neex cere ñun ñëpp ku ci wax te nekk mu kallaf xam nga ne diw mii kat ay ayam ñii la mel mos naa ko kon coow li jaratu ko la ca des daal mooy yow sa diggante ak sa borom sa diggante ak sa borom bu boobaa nag fuqaa yi dañoo xaw dañ ne awla ni bil xaq soo demee ñi nga xam ne ñoom dañ cee noonu woon sax bind nañ wax ne jamono booba de bi àll yi di xeex ak xawaar xawaarij mi dañ ko am ñooñ dañ ne nañ jóg dimbale ko ndax ali alxaq ñu jóg dimbale ko not leen te booba buñ buñ fekkoon ca départ ba noonu lañ defoon yaakaar naa Ousmane sax duñ ko rey kon waaye nag yàlla tamit nag léeg-léeg àdduna mu ak i dogalam waaw noonu la noonu la jamono demee ndax day am jamono yi ñoo xam ne dañuy bew ay buxaat lañuy doon dañuy bew alal day bewloo nit cëram nguur day bew day bewloo nit moo tax nag ba jamono mel ni ñu ah yàlla nee na nangam kiy dikk di déglu si discours sëñ xaadim mu toog di di di ko di ko wax xam-xam wala jamono mi ni nga ñëw ci jumaa ji ah, ana imaam ñu la imaam a ngi nii nga ñëw ci imaam laaj ko loolu rek lay jariñ imaam amul beneen mission bu dul dox lislaam l'islam jën nag du lu beru fële ne fa ñum l'islam ñun ñii la <laughs> ñun ñu kat bu ñu fi jógee woon jóge fi kon lislaam ci nun la fi mu ne kon képp ku ci war a nekk ne man dama bëgg a nekk maire dama bëgg a nekk député war ngaa dem wéet ak imam ne ko waa imam responsabilité maire wala responsabilité euh, euh, euh, ministre wala nangam lan la mu définir la ko ba nga dégg ko déggin wu am solo mu xamal la li aji sa kaw loolu daal lu am solo la waaye nag maala dafa mel ni loolu tabarakallah moo tax dafay war dimbale kuñ tooñ ngir ñu wane ne tooñ baaxut dimbale kuñ tooñ nag mooy ñëpp buñ xamee ni diw sàngam mais dañ koo tooñ lay dimbalee léegi du du yat du jaasi du violence du taal alale jàmbur lay dimbale nit mooy aw carte carte yay dimbalee te te te kenn nag ku ci nekk dañ laa bàyyi ne la mbañ gàccee nga ne lépp dañ ko tracé kon nag léegi ñun la ñunu neen la ñunu képp la ki gañe gañewul kiñ gañe gañewul allahuma lu dul ki nga xam ne fas na yéene la mu wax waat ko mu def ko loolu daal lañ gis ne mooy mooy mooy mooy jàmm ji mooy mooy daw ci fitna waaye man de ku ma bokkalul ci li may yëngu lu def baax na loolu it si boo ko xoolee da ngay gis ne loolu du du du kii du du mandate te bu kenn jàpp ne yàlla gi naa wax na ne wattandiku leen fitna ndax bu dikkee kat ka ca yoonam néewut ba wutut mën na ko bañ a jéggi benn sa jëmm wala sa alal wala sa bokk bari waa nga dégg yu mel nii am ñu ne ah diw sàngam di dañoo lakk place am wala diw sàngam de dañ koo jam nga ni ah diw sàngam sab xarit lay doon mbaa sa mbokk mbaa leneen wala nga xëy bëgg a génn doo mën a génn kon fitna baaxut yal na yàlla musal ci fitna ñoom it nag nañ xam ne waruñ leen waruñ leen a gën a gore ndax nun ñi laajut defuñ dara lu dul nekk ay citoyen simple di dund suñu jàmm lu nuy may jàmm ñoom it war nañu ko mën a yéene waaye wallahi la si laa ilaha illa hu démb laa bët oto bu fees dell liñ tuddee ay nervi <laughs> ma ne ma ne waa ñii dañuy xaraji fuñ fuñ xara jëm moo ne fi ne nii ni boo demoon tey jii ànd benn garde corps te fas yéene li nga def nga def ko ba ñëpp xam ko comme liñ misaaloon ci Omar jàmm képp yam kon day mel ni fitna dëkke li yonent bi noonu fitna day nelaw yàlla rëbb na ko koy yee yàlla di wax euh, ci ci ci ci xulaamoosu bi rabbil euh, naas allasi yoosi si fii suuri naas minal jinnati wa gis nga nit liy nekk ci biiram diw su subaa dana xam ne nangam dana diw danaa ko daan diw danaa ko ni takkat yow daan gi ngay wax diw danaa ko daan danaa ko not yëpp doole jàmbur nga ci yaakaar mooy lan jël am mbooloo tàggat leen ñu am doole ne leen dal leen ci kaw diw te ñooñu yow yaa leen jaboote kon nañ leen bàyyi xel ne njaboot gi genn njaboot gi la dëkk bi benn dëkk bi la Sénégal rek kon kii daal mos nañ ay yëfam léegi nag nañu bàyyi ñu moskee ki nga xam ne mu aaye woon na xam ne moom it ay def na ki nga xam ne bii tamit moo bëgg aye na xool kee la taxoon ñu ne ah nañ ko bàyyi te keneen moom it mottandi ko ko lii rek la amul leneen bu jafe-jafe amee nag ba ngoyaan am loolu mooy fitna su boobaat liñ digal mu waat euh, bi mbaa citoyen bu ca bokk bul génn bul sànni xeer bul yàq bul rey ku la reyloo tamit boo lëggatee si biir su ca dee am am am benn benn masuliye buñ koy benn benn luñ ko cay laaj yow yaa ci ëppale yow mi jam waaye vingt cinq mille francs ñu may jox tax ma gàddu bakkan mbaa ma suñu loolu loolu nañ leen ko seetaat nag wax dëgg yàlla man bi ma xoolee gis jaasi laa ne lii moom kuy wut jàmm du def lii parce que du signe symbole wax dëgg yàlla xam naa nag garde corps nga bañ a yor dara waaye yor sa jaasi dugg sa oto ñu luyeloo ko climer ko ba mu sedd guyu te ñooñu kat boo lëggatee ñooy tooñ bi di ko jàmbur yeeg di def lépp di ñu sonal noonu sëñ bi nag kon am nañ jafe-jafe yu metti yàlla na yàlla musal ci fitna kon nag day mel ni Ammaar ibnu Yaasir lu ko lu ko lu tax ñu rey ko ci fi nu te yonent bi newoon na ko bu jamono boobu amee yow mii ci lañ lay rey te am na ñoo xam teg nañ seen bët gis nañ loolu bu fitna amee taxul ñu mën a dellu ginnaaw waaye xam nañ ne kat ndekete di yonent bi waxoon nag te yonent dong lañ doon topp te yonent bee leen yar kon fitna baaxut te lépp ci kenn dong lay jógee walla ñaar yaakaar nag ku ne dégg na ni xakam Seydina Aliou naa i la jamono bi Seydina Ousmane nekkee di gouverneur dugg na ba tàyyi wax ceeg moom ne ko wattandikul fitnaam wattandikul fitnaam xakam yonent bi dama na ba génne ko Madina kon fitna bu ko kenn xeeb dañuy wax ne nag bu jamono bi jotee ñaari nit mooy am ki nga xam ne moo am xaq ak muj ñoom ñëpp nag ay mujtahidoon maanaam ci Sénégal yoruñ dostoor boo xam ne lislaam a koy àtte ñu rëdd yëpp mais suñ xaanoon yi nga xam ne moom lañ tëral muy ñu tëral ko d'accord ci te tëddi jullit dañ ko jàppee loola yow yaay xool ñaari mbir dangay def sa yitte nga ne ah, diw moo kii wala diw moo gën kon bañuñ nga tànn ko la sob soo amee am nga ñaari pay am nga ñaari pay mooy al ijtihaad wa sawaab noonu la mag ñi attee woon jamono ba nga xamee ne eh, ñaari taifa yooyu dañoo jàppante woon te yonent bi ne woon tamruxu maariqa ala xiin furqa furqatin min minal awla taifatayn bilxaq kon loola mu waxoon ca rey Ammar ibnu Yaasir loolu kon yàlla na ko yàlla euh, musal ñi ci deegum yàlla na fi yem fitna yi ñi ci jam yàlla na fi yem ñu ñu teey rek te xam ne yàlla nag xuli allahuma xuli allahuma maalikal mulki tuutil mulka man tasa yàlla jël nguur jox ko ko soob ñun nag ñooy sabab si gis nga bu jamono ñëwee del def listixaar ci nit ñi yàlla dafa jege nit ñi nit ñi lañ bëgg jëm ca su ca ñëpp maasee di majorité yàlla ànd ca ñoom waaye su boobaa nag ña yor yëf ya nañ ci ànd ak dogal bi yàlla ak àtte bi yàlla suñu wutee rek finnaam kon nit ñi dañu leen di bàyyi xel loolooyu tax nga xam ne boo boo jotee li ngay jot ba noppi nekk maire ca gox ba del jàppale nit ña ña fa yor seeni seeni mbootaay moo xam jigéen ña la def seen soppi sidna Muhammad wala ña fa yor seeni daayira def seen cant wala ña fay def seen mouvement culturel ak bu mën a doon wutal benn place boo xam da nga koy aménager ñu di ko fa defee bañ a sakk mbedd yi bañ di indi ay perturbation yu dul jeex loolu mooy suñu dund Sénégal takat ñun ñëpp xam ne fee ñuy nekk tey Europe gi ñuy joxe misaal bés bu set élection dana fa am ne kenn du def lii kenn du def ay ay oto ransale ko ba mat ñaar fukki oto ngay korne sakka mbedd di kon wa in taifataani min almuminina axtatalu fa aslixu baynahuma fa in baxat ixdaahuma ala al oxra fa xaatilu allati tabqi xata ila amri allah fa in faat fa aslihu baynahuma bil adl wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin loolu la yàlla sant jullit ñi jàppante munta ñàkk léeg-léeg te li ko indi lu ci bari la sëñ Abdal waxoon rek liy taxa indi ak wóotante man xam naa ko muy xëccoo daraja njariñ te man duma ko defal kenn adduna du tax ma def ko loolu nag yaakaar naa ne kon ku nekk yaay xool sa bopp ni nga bëggee daraja la sa morom bëggee daraja waaye su jàppante boobu amee it na am ñu jóg defare leen ca saase rek te bu kenn seetaan loolu bokk na ci euh, message yi ñu li alxuraan sant seetaan ci ñaari kilifa yi ku ne mën nga koo wax ak moom mu bàyyi loola loola day lu am solo la loo xam ne ku ko def yàlla dina la ci fay incha allah am na ci loolu nag topp bànneex topp bànneex nag dafa xaw a métti mooy man nii laay def ndax ñi nga jël sant leen li nga leen sant te waxoo leen li nga leen wax bu boobaa nag day mel ni ay tooñkat la ñu daal doon te inna allah la yahdi xawma daalimin yaakaar naa ne dégg nañ ci Moussa al Ashari min min min min kaana min ashahaba radiallahu anhum waxoon na ne yonent bi waxoon na ne dana am jamono joo xam ne jii day rey dana bari lool rey daal di wax ne yonent bi ne woon na mooy wala si nafsu muhammad bi yadi laa tashabu dunia xata yaati ala nnaas yowmun laa yadri alqaatilu fii fii ma qatal wala almaqtul fii ma qutili <laughs> mu ne danañ dem sax ba jamono day dikk ba nit day dee ki rey moom du xam lu tax kiñ rey du xam luñ ko reyee mooy lii rek pëccëxoo bi boo amee fi ne boo lëkkati dañ naan politique la woon rek mu jeex mu jeex kon nag yàlla nu yàlla dimbale ci fitna rey baaxut nañ bàyyi rey li ma naan léegi dafa mel ni nit ñi dañoo gaaw a dee fi nekk nii bés bu set daanaka nga dégg ne rey na nangamam te àgg na sax ba leeral ne nit dana rey mbokkam dana rey nangamam fi ne lam ko waxee woon rek noonu la dikkee léegi te dara xëccoo xaalis xëccoo kër xëccoo nangam daal di jël sa fetal su la sa mer kii te te giifaloo sa mer bàyyi woo xel ne kii ngay rey danga nga ko layoo sa digganteeg sa borom nga ne ko tëll mu de bindoo ko xamoo xamoo xamoo xamu xudóot yi nga xam ne ci la nit di yëgee loro gi tax mu de xamoo ko kon yàlla na yàlla musal ci loolu ci ci bépp loolu bu jamono melee nii nag xëy gis ko jaay diineem nee nañ bu mu la bu la bu la bett jamono bu melee nii ndax lan saakob ceeb ñaar dërëm jamono bu melee nii jikko yàqu seytaan mooy dikk wommat nit ñi lu mu lay jub da jubloo rek ca la nga bëgg te doo ca bàyyi xel lislaam nag rëdd na leeral na kon wax nañ léegi li ci yonent wax wax nañ tamit su ko defee nag jamono bi soril loola moom lañu ci lislaam sant bañ caa bokk bañ si njaboot bañ caa bokk àgg na ci ba benn da ngay bokk mbaa nga jël sa dund sensé ko complètement jikko yañ la xamee woon nga lawi ko sànni fële ànd ak jamono ju nu jamono demee nga demee ko loolu dara jëru ko ci àdduna kala xamoon démb dootu la xam loolu dara jëru ko ci àdduna kuñ ci woo tamit boo lëgëtee booy lay yow la ñu taaj ci kanam yàlla nga lay ka nga xam ne moom nga séqanteet loola kon fitna baaxut lu yee fitna baaxut lépp lépp lépp ki nga xam ne moo fi ñëwoon waxoon nañu ko dañ ne jamono bi bu dikkee taxas yataxasabuna nas li atmai tama li dunya faqat da ngay gis kenn ku ne wut ab kuréel bu mbokk ngir lan ngir àdduna koomum àdduna kepp waaye kuñ ne ci woon tey jii na nga seere ne bés bi ñu la joxee lii baatu nit ñi sécurité nit ñi nangam nit ñi ci sa baat wii la te ëllëg la ko laaj yow ma xiyaam soo ragalee yàlla da nga daw moo tax yonent ti daan wax ne suñu mbir mii duñ ko jox ku koy laaj waaye loolu nag jafe na léegi ku ndax ku laaju duñ jox kon day daal di mel ni ki am xaalis daal loo bëgg ñu defal la ko ki amut loo bëgg duñ la ko defal déedéet lii bëgguñ ci loolu lii liñ ci bëgg mooy seet ka gën ci yow ka gën ci sa gox ka gën ci sam réew ndax su ngeen xoolee bi Sëñ Tuubaa sañcee benn dëkk tuddee ko Daaru Salaam da caa teg ñaan ij al salaamatan taduumu yaa salaam liya walil yàlla fi daari salaam su fekkoon ne jàmm mën naa ñàkk kon du ko ñaan yàlla ñaan ko ci njaboot gi kon nag loolu moom it moom taxawaayam la boo xam ne lu mas a am du ko fayee fitna du ko fayee leneen ndax tooñ nañ ko sax te taxul mu fayoo fitna loolu taxul mu daan wax naan dama miin ñu tooñ ma ma muñ yàlla di def ku ma tooñ mu fay ma fayul ma nee na ba ma xamee loolu laay def képp ku ma tooñati ma bàyyi la ak yàlla loolu daq lépp kon nag nañ bàyyi xel loolu te xam ne dégg ni sëriñ bi wax na nangam ba noppi nga di ko roy ca lenn la neex te la nga xam ne daf la koo digal dëppoowut ak li nga bëgg rek too ko ca def loolu tamit xamuñ ko nag nit kat su dee sa kilifa lépp lu mu wax da ko ca topp mun Muntaxa mii ku ko xam-xam ne nituk jàmm la lu yee fitna du ko def du ko wax du ko digle te gis nañ bi mu fi toogee léegi yëngu-yëngu yu bari traversé na ku ne xam na position am na mu ca taxawee loolu nag boo ko xasee xam tey mu kalaaf bind la rek nawee kilifa yu bare bare bari dañuy taxaw waaye nag euh, tabarakallah àdduna mooy mel nii rek kon daal àdduna bi dikk te indi yëfam yàlla na dellu fa mu ko jëlee woon ah fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwaahum nit ki nag boo ko wooyee ci dëgg ci dëgg yàlla yàlla nee na bu la ca topp ne na xamal ne rek bànnee xam la waaye yow la la waroon wàcc nga kon kilifa gi moom la ko waroon wàcc na loolu yonent bi doon wax naan danañ rey nit ki du xam ci luñ ko rey nit ki rey tamit du xam loola kon ci rey ci jamono yi tamit day daal di xaw métti yow mi rey doo xam ci lan nga rey ndax ba ngay jóg loola taxutoon nga jóg kii jógoon di demit loolu taxutoon mu jóg naa ngi tàmbulee ci wax bu ñaaw fitnaa ngi tàmbulee ci yëkkati ngànnaay kon loolu nañ xam ne ci la bokk tey yëmut fii soo jàppee naan politique ci àdduna leen déet tooñ bokk tooñ bokku ci de tooñ moom dañ koy àtte ci kanam yàlla kon nag nañ xam euh, war warteef wi ñu ci war ak it xam ku bëgg am réew la koy bëggal dangay bëgg réew ma am jàmm ku bëgg ab gox la ngay bëgg mooy da ngay bëgg gox ba am jàmm set wet ci yittey nit ñi yépp nag sunu borom dogal mu tabarakalla mu soppi ko jamono nag dafa xaw a doy waar fi ne su ko defee ñu associé ci population yi mooy lan luy defarub dëkk ñëpp mën nañ ko wax dëgg yàlla fi ne boo ne woon tey jii nañ mayee ay garab nu ji ay garab yoo xam ne day meññi te wàññi garabu neemaay yi nga xam ne la def ay mango def ay new indiwaat suñ garabi cosaan yi nga xam ne dafa gental fi ne kër yëpp buntu kër yi fii fii rek ngay dox tey ji lu mat un kilomètre doo gis benn garab gu meññ guñ mën a lekk loolu nag ñi nga xam ne ñoo naan gox-goxaan yi man gisaguma wala boog déggaguma man li ma gën a bëgg waxee na ku nekk ak la nga bëgg nag waaye daal bokk na ci associé nit ñi ci li ngay def te dañoo ñàkk espace tamit loolu amut ndax léegi mbay dem na ba àgg ci sa kaw état sax mën nga faa def ay yëf yëfaan jàngal ko nit ñi dimbale leen ci loolu moo gën di leen joxi dépasse tey bu subaa ñu ñàkk ko ñëwaat ci sa bunt di la laaj nangam ki nangam wala fi dañuy wax ne may nit jën jàngal ko ni muy nappe moo gën doo ko jàngale ni muy nappe ak moom moo tax ñu bëgg ñi yor asaka te yàlla may leen tey ji euh, lu mel ni tey 40 milliards soo jëloon tey ji benn milliard def ko fenn sëñ bi loolu mën naa faj lu ne lu ne la man lu ne la man de kon bu kenn xeeb ni yàlla waxee dafa tuuti nag ci xelu nit ki moo woote ci jàmm moo wax li nga xam ne moom la jàmm di indi euh, la lépp moo ko rëdd kon nag ah, jamono ngi nii dikk ñi ngi jub waxtu ñi sànni suñuy baat suñuy joxe suñuy baat laa koy waxee dañ koy màndargaal nag ci aw xob rek waaye suñu baat la ñuy joxe yow kat yaa fi gën ci gox bi yow mii kat ku la fi teg li nga wax danga ko def loolu rek lay firi kon nag ku ne na xool amaam allahi tabaraka wa taala day mel ni ak waat la rek ab jullit nag du dugg ci subha su lënt amee xaw ma nangama ki nangam dellul ca borom xam-xam ya dellul ca ilimaan ya laaj leen ah waaw man de nangama ki nangam ñun la nangama ah, ki nangam ki nangam kon noonu nag ci dox doxinu àdduna rek ñi nga xam ne ñoom bu lii jotee dañ lay tëralal programme dañ naan la waxal sa programme nga wax sa programme ñu déglu la su boobaa ñoo def nga lii def nga lii alhamdulilah rabbil alamin ñu xam ne it nag lañ ñuy wutal sun yëfi bopp la ndax gox-goxaan mënta ñàkk xaalis ya ñu dajale taxi ya mënta ñàkk ay làmp lan ñu ciy defal kon bu ko kenn toj oto yii muud bawal bawal yeeg saalum saalum yeeg nangam nangam ak lépp yi ñoo ko moom yoonu kenn nekku ci politicien ba du ko fay kenn doom yi nit ñee leen jur nañ leen fi bàyyi bu ñu leen di jam bu ñu leen di rey jotewul ay élection dara ay élection sànni baat dong la yàlla na ci yàlla musal nu def lépp te def ko ci jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.